di kontaan bu baax ci sun frère sun xarit Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma ministre conseiller ci taxawaay bi nga xam ne tamit am na ko ci liggéey bii muy taxawaay boo xam ne bu am solo la euh, di sant it euh, monsieur le maire Abdou Lahad Ka di sunu xarit ci taxawaay bi nga xam ne moom it ànd na ñu taxaw ko ci liggéey bii di liggéey boo xam ne bu am solo la ndax ñoom ñoo ci war a jiitu ndax moo yor maire dëkk bi waaye di sant préfet su préfet ci engagement bi dafa wax wax ju am solo ca wax ju mat a bàyyi xel bi ñuy liggéey liggéey bi mi ngi seen nit koo xam ne mi ngi taxalaat kon jukko yi mooy li am solo jàpp na ne tey lu mel ni Rwanda ñun ci suñu jëmmi boppam bu buñ xoolee fa Rwanda nekk ci waxtu yi ñu toll président ba lancé na ko comme nii président Macky Sall lancé ko waaye citoyen yi ya ne ñoo liggéey liggéey bu rëy boobu ba tey mënoo faa gis lu mel ne lii ñuy taxaw di seetal kon ma bëgg nit ñi nan bàyyi xel ni lii du affaire politique affaire citoyenneté la lii du affaire farfarloo lii mboolem opposant bi kenn ku ci ne war naa jëkk xam ne action bii du président Macky Sall moom képp moo koy defal boppam wala ay partem ci xam ne waa sénégalais yi ñoo ko moom Sénégal bu setee sénégalais yi la setal rawatina dëkk bii nga xam ne mooy Touba ci amuñu lu dul moom ndax tubaa moom buñ ko waxee rek c'est spécial waaye nan bàyyi xel na it ñun kin tënku muy Serigne Touba naka jekk a nasaafatu minal imaan lan wax mooy gëm yàlla dafa bokk ci set tey boo xoolee ku mel ne Cheikh Ahmadou Bamba daawul sol lu benn yére bu weex loolee signification bu rëy la am ca loolu am jàngat la boo xam ne nii ñëpp baree bare war nañ cee mën a bàyyi xel ci set kon ñi ngi woote mboolem ndaw ñi lii nga xam ne ñun ànd nañ ko amul ñu xàjjale ak seen mboolem responsable même opposant bi ñi ngi leen ci woo ñun ñëpp ñu ànd pour seetal suñu dëkk bi di Touba waaye seetal suñu Sénégal loolu la ne woon nañ ko lancé di sant ndaw ñi ci seen taxawaay xam ne lii mooy li leen war ndax ñun mën na noo nekk ci kanam waaye yéen yéen a yor liggéey bi.